Senegal. Fogo Senegal. leen jàmm ci seen boutique bii di American Shop boutique bi ngeen doon xaar yegg si na ngi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi janoog seen karo kër xaadim boutique bi nag li ko tax a jóg mooy gunge sénégalais yi ci ay produits de qualité 100 pour cent américain boo lépp li nga xamante ni da ko soxla sa biir kër da ko fi am muy ay matériel électroménager am nañ ay frigo yu mag marque say by side ay Samsung ay LG attention frigo yi dañu ko garanti am nañ téléviseur de haute dimension boo bëgg am na fi image yu leer man yii xeetu image man musuma koo gis muy 40 pouces 48 50 65 75 ba ci 85 suñu numéro téléphone mooy 77 921 59 92 American Shop suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci Ndakaaru mooy gunge ñiy yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à coucher ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ ay lampe abat-jour ñu koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw si gaaw ah yen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American Shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu hôtellerie bàyyiwuñu appartement meublé yi yow sa appartement da nga ko defar ba mu baax waaye am na lu manqué li mu manqué ñun ñoo ko yor di ay xeetu meuble yu baax ay chambre à coucher benn détail duñu ko bàyyi ba ci serviette yi nga xamante ni sa gan yi bu ñuy ñëwee ah moom la ñuy utiliser suñuy xeetu matériel moo mujjee xew ci àddina bi jógee fële ci Amérique am nañ ay chaise lant muy suñu papa yi ba suñu maam yi suñu chaise roulante yi dafa baax lool ñi nga xamante ni dañu am ay jafe-jafe tànk mën nañ ci toog am nañ ay béke yu dëgër yomb doxe am nañ ay piliyaan suñu piliyaan yi nag yow xoolal bu la neexee da koy lem def ko chaise bu la neexee ubbi ko ba mu baax def ñun ci Serigne Touba ci murid lañ judd ñun te safar mooy weer wi ñuy profité rattrapé waat suñu bopp waaw moo tax lii moom dañ koy def toujours ak yàqante ko ak mbégte ak liñ ci def rek xepp waaw benn ay xale yu am jom bëgg seen bopp euh, nangoo liggéey bëgg fàllu benn ma te yàlla rek tax créé seen ay groupe WhatsApp cotiser seen alal euh, di nuyu président bi nga xam ne mooy Mass Koki di ko siyaa di kontaan ci moom lu ma kontaan ci moom rek dama koy xel waaw ku ñuy wax euh, Tourlaay borom Espagne euh, ki nga xam ne mooy Max laa yoon jiite benn famille diaspora sama famille samay xarit Ramdan ñoom musicien yi bu ma limee juum ba ci ñi nga xamante ni ay xaritu Wally ñoom Toumane yónni ma xaalis bu bari ñoom Omaro ñëpp gars yi ñëpp a jàpp ci bés waaye ñoom ñëpp rek mooy loolu mooy safar moom dafa nekk loo xam ne nekkul ku ne rek loo ci def pour yow la waaw maanaam yow mun nga ko woote waaye man bu moo ci defee sama bopp laa ko def la demee moo tax gars yi loolu la naan rek moo tax ñëpp a ci jàpp macha allah may gërëm ñëpp. waaw waaw waaw parce que Ramadan du groupe dox daje Ramadan du rek Ramadan famille d'abord c'est une famille te ki nga xamante ni moo ko créé doon monument muy Thione Ballago Seck ko ñaanalaale ci bés bi alxuraan yi ñu fi wàccee tey ci suba fasaale nañ ko ci masaale ci sama baay Massamba Ndiaye ak képp ku fa nekk kuy fa fekk rek di boo leen jéggal yërëm leen leen àjjana yi gën a kawe ci barke weeru safar waaw loolu deret la c'est mon cousin ñu bokk deret ñu nekk ay xarit man moom xarit bëgg ma teg ma mu tegul kenn waaw li ñu boole dafa bari ñu wëlbati ko nekkaat sama patron waaw donc waali moom ñu doon bu ñu koy wax fële ñuy faral. waaw parce que loolu moom li tax mu rëy du jëmmi visa bi rek mais dafa am mu jaar muy moom depuis mu nekkee ndaw ba léegi nii. dafa daan am faral am problème jafe-jafe affaire këyit waaye li tànn na ko bëgg ko yóbbu ay yoon muy am ay waaw loolu la daan demee quoi moo tax tey bi mu amee visa bi waa léegi njëkk a kontaan dañ ko fekk bi ñëpp a kontaan macha parce que tam yàggoon na bëgg bu ñuy tukki bu bi di ànd ak moom te daawul antu waaw te mu nekkoon yeneen i bagage rek ndax lu loo gis rek suñu borom xam na app bi bu app ba jotee lay am tant que jotul tam du am. waaw ñuy ñaan bis bi mu jotee bis bu ñu ko déclaré visa bi mu tombé bésu safar bi ah waaw loolu mbégte la rek ak xéwal ndax daaw la yóbbu passeport am ci sëñ Mountakha mu ñaanal ko waaw ci mois d' donc bu ñu ci mois d' août ren visa am génn waaw waaw parce que yoon bi ñu jël moom. moo noonu la bindoo des fois nag mën nañoo dem ba yéeg wala ñu dem ba am lu ñu metti parce que ay nit kese lañ mais ñun dara bettuñu ci xam nañ ni lii ñuy dem nii euh, loolu la laaj yoon bi loolu la laaj am nay o am na ay baax am na waaye am na ay safaan léeg euh, nit mën na la xool rek nii nii nii neexoo ko waaw te loolu tam bu la daree da war a sant suñu borom. non waa yi loolu la ñuy wax waaye ci muy sëb bii rek sëb bi teg nit koo gis muy dem rek. ci biir Ramadan lañ nekk ci biir Ramadan moom moom parce que Ramadan mooy li ma la wax sànq famille la nag moom mooy li ma la koy am ku ko amul war ngaa tiit ndax foog naa nit mënta doxal lu baax wala mu jub wala mu dëggu. wala nu mu mënti mel la qualité yu mënti am ba du ko am faw nga am noonu ndax loolu suñu borom daa wane misaal bi bu doon baax rek mooy tere am wala jubal rek mooy tere am noonu Seydina Mohamed du am noonu sallallahu alayhi wa sallam te fa mu dëkk dafa amoon noonu ay noon yu ko daan nañ ko sànni nañ ko xeer saaga nañ ko lu ne dégg na ko te dimbali nit ñee ko taxoon a jóg waaw kon nit ñi nga xam ne ñu xeebu lañu ñu dara bu ñu gisee ay non lu ñuy fexee nag di demee noonu dañoo war a sant des fois nag ñun suñu xol mën naa jeex comme man ba ma dalee sama xol jeexoon na waaw ba ma xaw a salit mais après yeedaat naa sama bopp ay retaan jàpp ma ndax suñ tubaab mi nga xam ne moom moo woote safar di woote màggal bi lu ko nit deful te defu leen dara waaw ñi ko doon leen dara yàlla xam na ko waaw ah, donc mais dañuy faral di wax ni que tout le que Ramadane moo moo codéwul maanaam ku bëgg ñëw intégré ba Lamina ci la waxee ni Ramadane dafa am Faramaren am est que mën nga ñu distinguer ñaari groupe yooyu. waaw non Ramadane du question dafa codéwul ko jiite nii moo moo yàq li kenn mënul nekk moom siis kon na ngay sonn ndax ku mu gis boole la ci boppam. te foog naa loolu xanaa moo gën de mel noonu moo gën. a ñëw intégré parce que lépp ci mooy li ma la rek loolu mooy li ma la wax rek Ramadan famille la kër la tam kër goo xamante ni tam këru euh, borom xol bu yaatu la muy Wally Ballago Seck yàlla nga yàlla defal cat rek te képp ku ci xaj aussi amul benn problème waaw. noonu la ah, waay. oto 100 pour cent waxoon naa la ko sànq waaw waaye foog ma leeral ko am nañ ay mbàjj ay ensemble ah yi xeetu coton suñu parfum yi nag dafa léger ndax ci tàngaay la ñu nekk waaw parfum yi dafa lay jox xeet bu neex góor jigéen ah suñu frigo baar yi dafa baax ci tàngaay